asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ginnaaw ban bokkee déglu euh, sëñ bu sa Dieng ak imam Malick drame euh, nu bëggoon ci indi suñuy xalaat xalaat yi nag mënta ñàkk mënta ñàkk ndax am na famille yoo xam ne dañ leen di détruire dañ leen te yàlla xam na ne représentation bi defal nañ ko l'islam ñu néew def nañ ko ñu néew euh, bu fekkee ni yow na ci famille Dramé bi nga xam ne moom laa xam bokk ci ñun Dramé lañ sant Dramé ma di leen ci xamal lenn Dramé mooy xeet wi nga xam ne walla sant wi nga xam ne ba àdduna daj ba àdduna daj ab puubeen amu ci Dramé boo gis ab jullit la ma sa doon amul beneen adresse bu dul islam bu dee njàngam alxuraan bu ñu waxantee dëgg njàngam alxuraan ñoo ko tas ci biir senegal ndax Dramé dafa yàgg Afrique lay Afrique képp lay tudd depuis l'empire du Ghana l'empire du Mali ñoom Kanka Moussa ñoom Soundiata Keita ñoom Soumangourou kante dama ne booba ba nëgë ba nëgë koo seen mu sant Dramé rek wattu na alxuraan wala jullit bu sell la bu dal sëñ Modou Bousso Dieng euh, doomi soxna association doomi soxna bu amee yow nga bokk ci yow nga bokk ci bu mu waxantee dëgg te indi dëgg Imam Dramé moo doon président ba ñu duñ xëccoo lislaam ndax lislaam luñ bokk la ginnaaw ba doone ay jullit ay bokki neen lañ kon ki mënta ne ca kanam kii ne ci ginnaaw ñun ñëpp tolloo mooy philosophie Dramé waaye ñun jàngal alxuraan ci dëkk bi ci àdduna ñun jàngal alxuraan kenn xamul toll ki jër lim ñun jàngal alxuraan ci réew mi ku fi mokkal alxuraan ka la jàngal ñoo ko jàngal ñun ku fi mokkal alxuraan rek ka ko jàngal noo ko jàngal nun waa Ndramé euh, ay wax dafa tegginu bu nit ñi muñee balaag lépp balaag lépp say kàddu danga ko di rafetal waaye Imam Dramé day gone d'accord waaye moo la ëpp xam-xam li yàq réew mi mooy dañu jël xam-xam sànni ca àll ba jël mag jiital te yonti bëggiwu ko noonu fu ngeen daje boroom xel mi jiitu waaye senegal képp ngay gis ki maga yor lépp am xel fële sëñ Mourou Bousso Dieng Dramé laa sant man du ma bàyyi nga yàpp ma mukk ci àdduna jàng nga sant wala xum sant nga sant waaye waxtaan naa ak say bokk imaam Dramé du sa morom moo la sut àlluwa moo la dàq jàng te gënoo koy bokk te loolu ngay tiitaru ak di fa tiitaru waa kër ndijaay ma ma bëgg nga ànd ko dal boo bëggee xaaj dama ca Macky Sall mu may la boo bëggee xaaj dama ca policier ñu may la waaye fii xam-xam lañ fi wax di way sama baay ak di sama maam ak di way sama bàjjan loolu xew fi géewu xam-xam la géewu xam-xam daara ji nekkoon Pire Xaali Amar Fall ba mu sampee daara ji doon ceddo waaye xam-xamam des na lu bari dafa dem jëriñ sant Dramé ñoo dikk ak Cissé yor daara ji nekkoon pire moo tax bu ñëwee Kajoor fekk ko Dramé Dramé ak Cissé Cissé bi tubaab fédéré bi lakkee jumaa ji ci lañ dem nag formé ji ñeneen waaye Sénégal histoire Sénégal dañ koo jaxase euh, dara du ci dëgg tubaab bi moo ko renégocier après bi ñaari guerre yi jàllee kan boo ko dëgg kan boo ko waxante dëgg euh, gi yaatu lool ci réew mi te du darul ay koom du darul ay koom du lenn dul ay koppar yoo yor Mamadou Lamine Dramé bi muy songook tubaab bi bi muy songook tubaab bi maam yu baree baree bare tey ñu ngi ak buum te tey ñu ngi leen di ziara kan boo ko honnête tey wax dëgg tey wax dëgg Mamadou Lamine Dramé euh, dama bu ko neexoon bu ko neexoon lépp ci loxoom la koy teg parce que amoon na moyen pour collaborer tubaab yi dafa lànk dafa xeex ak moom ba tubaab bi rey ko dagg bopp yóbbu te dañ koo wor kan bu ko waxante dëgg réew mu nekk neex na par parloo gi bari na kenn ku ne ñoo di tey ci sa kanam sëñ Modou Boussa da ngay dal da ngay dal dama ci histoire Sénégal tuuti waaw Makala Dramé kóllëre ga amoon na ko ak Mamour Anta Sali ba dégg nañu ba muy dem Banjul sëñ Tuubaa moom la bàyyee sëñ Tuubaa mu dalal ko baa yor ko di ko jàngal dama ne dangay dal yu bari nag bëgguñu koy wax ndax sutura ndax bëgguñu koy wax parce que bokk bëgguñu koy wax ngir ànd defar rek te lislaam benn dong la ñun ñëpp ñu bokk amul ku fi ëpp sa morom amul ku fi ëppale sa morom wala ku ci gën a tuutale sa morom ba tax na ñun waa Dramé suñ philosophie mooy duñ giiroo mukk ci àdduna buñ doon giiroo du ngeen fekk dara waaw ndax l'islam ñoo ko tasaare dans la sous-région booba Sénégal amut booba Sénégal amul ca empire du Ghana empire du Mali la Jolof ba ci Saalum gii nga xam ne Salim Soare Raay moo ko sanc dama ne Dramé yàgg na nun xeetu jaaxaanke lañ duñ tooñ duñ mooy yàlla alxuraan lañ xam teg ko sant Dramé bu mokkalul alxuraan it jullit ga wér na ca moom dama ne duñ tooñ duñ tooñ te fu nekk fu ne mbooloo darnu toll na fi jamono boo ne Dramé ñëpp ne kañi ñëpp ne kañi ku tedd ku màgg ki ku sell mooy kañi ci la santu kañ ji génn nun kay noo ko aay na buñ ko defee defeti buñ ko waxati kenn rek màgg muy suñu borom boo fekkoon ay opportuniste lañ ba ndëgë ni bu nee Dramé rek Sénégal gépp ne kañi waaye yàlla dogal na dañoo xam lislaam ay lan teel ko fee jëlee teel ko fee toppale waaye loolu sëñ Modou busa laaj ko say bokk des na la ko wax des na la ko wax euh, ñun fu ma sa nekk rek jumaa lañ fay def ak i daara dëkk bu nu amit tuubaa lañ koy tudde am nañ ak Touba ca boru Mbàkke ñu ne ko Touba Kouta xam ngeen ko am nañ geneen tuubaa goo xam ne mu nga nekk Guinée suñ bokkee sant jaabi ñoom lañ ko bàyyee am nañ geneen Touba goo xam ne mi ngi nekk Guinée Bissau am na geneen Touba goo ne mi ngi nekk Abidjan te tuubaa yëpp Touba lañ ko tudde te buñ koy def daanaka senegal amul senegal amul sëñ Modou Bousso da ngay dal xam na ni histoire bi demee waaw liñ fi fekk jàmm te jàmm lañuy jéem a doxal waaye nag ku ci fëgg sëb dënd ba dal ci suñ kaw daañu génne suñuy bagage xëpp la ko nun doon sa morom doon sa morom lii ñuy def ci nun la sax ci suñ deret la sëñ Tuubaa ñëw na Abdoulaye Cheikh Omar Foutiou ci boppam dem na Bakel yàgg fa lool ñu boole ko pël pël pël pël firdo yi molo molo yi ñoo ko jàll yóbbu ko dingiraay avant dingiraay Tuubaa la jëkke suñ Tuubaa ga ca ga ca ga ca Guinée ñooña ko jàllee di ngi dangay dal boo demee kër Cheikh Omar waaw suñu sunu suñu bàjjee fay say nga dem kër Alaaji Malik suñu bàjjee na fay sëy nga dem ci kër saaxo saaxo ak foo dugg boo fëggee jarbaa bu sant Dramé rek bil bunt bi wala ko sant saaxo damane ne ñun ay jaaxaanke lañ xam lislaam bu yàgg mosuñu aw ci kéeféer kon nu jégal te ñaan jàmm sëñ Modou Bousso dalal billaahi duñ sa morom peace and love jaa jëf jaa ngeen jëf jàmm rek la ñuy woote jàmm rek la ñuy woote ak lislaam ju sel lislaam ju wér lislaam ji nga xam moom la suñu borom santaane kon jaa ngeen jëf man la Ousmane Dramé bu la réveillé conscience